Ça, c'est la presse. Mais je suis fait oui, partie de la presse, s'il vous plaît. Je suis journaliste comme toi. Okay. Bonjour, c'est you. Euh, on vous salue tous. Et au nom de la coalition, son co-président, à mon nom propre, candidat de la coalition, je tiens à vous exprimer toute notre satisfaction à être aujourd'hui à Seyou. voulais vous remercier aussi et surtout pour votre mobilisation. Hier, jusqu'à 2h du matin, vous étiez, d'après ce qu'on nous a raconté, des milliers des milliers à nous attendre ici à Sédou. Malheureusement, les imprévus du calendrier ont négativement impacté sur la journée d'hier. Nous aurions dû quitter très tôt Ziguinchor mais il y a eu un accident. Après le meeting de Bignona, qui a entraîné des blessures qui vont de légères blessures à des blessures graves à 17 militants. Il l'hôpital, euh, prendre les informations et surtout assister un temps soit peu ces blessés. Cela a impacté sur le calendrier. Euh, nous n'avions pu quitter Ziguinchor que vers 15 heures et ça a impacté sur le reste de la journée. Aujourd'hui, nous avions l'intention de faire la région de Sédhiou et particulièrement les deux départements qui nous restaient le département de Bounkiling le département de Sédhiou. Mais ce matin, une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle nous est parvenue. Euh, nous informant du décès l'un des militants qui était victime de l'accident, du nom de Aruna Diédiou. C'était un militant actif du parti. un militant actif de la cause patriotique qui fonde notre combat. C'est un militant déterminé qui avait, avec d'autres militants, qui s'étaient cotisés eux-mêmes pour prendre le transport par la location d'un minibus et pour se rendre au meeting de Ziguinchor. Il est tombé au retour de ce meeting Donc il est tombé en service politique de la cause que nous défendons. C'était un père de famille qui a laissé des enfants et une épouse en état de grossesse avancée. Nous nous devons donc de nous incliner face à cette tragédie et le directoire national à Dakar, en concertation avec nous-mêmes et beaucoup d'autres acteurs, a décidé de suspendre la campagne pour la journée d'aujourd'hui. C'est dommage que ça coïncide avec l'étape de Sidiou, qui est une étape extrêmement importante pour nous, comme toutes les étapes du pays, mais singulièrement comme toutes les étapes du sud du pays. Je sais que vous saurez transmettre nos émotions et notre tristesse à toute la population sédoise. Et je sais que cette population saura comprendre que dans un contexte pareil, la morale ne nous permet pas, et notre conscience, de continuer comme si de rien n'était. Il y a des choses beaucoup plus importantes que tout dans la vie, et la vie humaine en fait partie. Nous avons décidé donc de suspendre et de ne dérouler que quelques activités incompressibles, j'allais dire, puisque les engagements avaient été pris avec les autorités religieuses. La caravane allégée va se rendre sans sonorisation, sans musique et sans bruit, va rendre visite à ces autorités religieuses, euh, solliciter leurs prières pour le défunt, déjà, solliciter leur le prière pour nous, mais solliciter leur prière surtout pour le Sénégal. J'espère en tout cas que les militants et les militantes, et je suis même sûr que les militants et les militantes comprennent la situation, l'acceptent puisqu'ils sont aussi bien concernés que nous et seront transmettre à la population, aux populations du département de Sédhiou euh, les réels fondements de, ce, de cette réorganisation de la campagne ici dans le département de Sédhiou moo wax ci wolof tuuti nii gannaaw bi ñu gërëmee waa Sédhiou ci seen yéeg-yéeg ak seen engagement xam nañu suñu candidature mu tollu waa Sédhiou démb ba deux heures du matin Sédhiou yëpp a ngi mobilisé woon ay milliers milliers wu nit ci guddi gi ak ci sedd bi di ñu xaar waaye li ñaan jam ak yéeneem yàlla ak dogalam li andi report bi ba ni ñu bëggoon a financé démb Sédhiou mujj ñu ko def wala bi ñu fi ñëwee it six heures du matin lañ fi yegsi li ko andi mooy bi ñu xëyee démb ci suba yàlla dafa def ñu yëgal ñu benn accident boo xam ne suñuy militant yu jige woon fi ñuy wax Kataba commune de Kataba ñëwoon bi ñoo na fekke ci meeting bi bi ñuy ñibbi barki dem ci guddi dañoo def accident juróom fukki nit ak juróom ñaar am ci ay gaañu gaañu mu amoon ci ñett yoo xam ne seen gaañu gaañu xaw naa métti ba àndatuñu woon ak seen sago ñu demoon nag ci hôpital régional Ziguinchor dem massawu leen dem bokk ak ñoom métit gi waaye it dem lañ ci mën ci jàppale ci li war mbir mi war laaj ñu def ko loolu tax bu ñuy jógee si daanaka 15 heures wala 3 heures. jot na retard boobu nag boo ko amee foofu te yàlla def fi ñu romb yëpp population yi génn toogoon ci tali bi dañu xaar ñenn ñi def ay trois heures de temps quatre de temps fenn fu ne faa taxaw nuyoo tàllal loxo doog a continuer moo tax bi ñuy yegg Kolda daanaka minuit passé na loolu moo andi retard boobu ngeen gis loolu it moo andi. lii nga xam ne mooy dogal bi directoire national ginnaaw bi ñu waxtaanee ndakaaru dogal bi rotee foofu ci directoire national bi dogal gi mooy campagne gi ci bésu tey gi bu soobee yàlla li coalition Sonko président jël ci décision mooy dañu teggi suñu tànk wala nañ ko oyofal bu baax a baax a baax ndax kenn ci ñooñu defoon accident bi démb yàlla dogal na li muy dogal ba euh, nanguwaat bakkanam ñun nag dañu ne àdduna am na loo xam ne moo ëpp solo lépp course bi xëccoo bi bëgg a falu bëgg a jiitu loolu yépp su dee yéene gi sell na bu dee defar rekk moo ko waral lu baax la waaye bakkanu doomu aadama amul lu war a féete kawam rawatina koo xam ne cofeel gi mu am ci yow yéege gi mu am ci yow ak gëm-gëm bi mu am ci yow su ma nee yow nag mooy sa gis-gis sa xalaatin ak say action moom moo ko moo taxoon mu nangu ànd ak ay nit ñu jël seen xaalis dajale ko luwee seen minibus ne kenn duñu nettali meeting ba ba bi muy ci meeting boobu lii dal ko ci kooku soo ko mënalul lépp dem war nga koo delloo njukkal te delloo njukkal gi mooy au moins nga mun koo sargal ci benn fan ki ga ki waat ki daanu la ñu koy ñu ko doon wooyee Arouna Diédhiou la militant wu Pastef la militant wu coalition Sonko 2019 la bàyyi fi njaboot ndax père de famille la bàyyi fi juróom ñeenti doom waaye it bàyyi fi soxna soo xam ne toll na tànkam diis na torop fi mu toll nii ñu koy massawu njabootam di ko massawu soxnaam yéen ko jaal di ko jaal waa këram yépp di ko jaal waa dëkkam ak waa Casamance yëpp waaye di ko jaale waa Sénégal parce que doomu Sénégal la lii dal loolu moo waral suñu mbokk Sédhiou yi ñu ne leen campagne yu tey bi xam nañ ni suñ ko déroulé woon tey kenn du xaj Sédhiou te ay acteurs politiques lañu mobilisation la wut luy wane ni askan wi ànd naa ak ñun waaye mobilisation yi li ci suñu jubluwaay dëgg mooy ñu mun a weccoo ci xalaat ak askan woowu ak ah, bàyyi loolu lañ ko bëgg bëgg bëgg bëgg dama ne bisu tey bi mënuñu woon ñàkk gannaaw bu ñu waxtaanee coalition bi yëpp leader politique yëpp waxtaan it ak ay mag magu diine yi jël seeni xalaat li ci gën génn wala li ci génn dong mooy li gën a rafet mooy bisu tey bi ñu benn njukkal moom Arouna Diédhiou waaye comme am na loo xam ne fii ci département bi ñiñ fi toogal à commencer par coordinateur bi taxaw dañoo waxtaanoon ak ay kilifa diine ba ne leen bu soobee yàlla du mu xat-xat-xat nañ fa jaar ñu ne tey mbumbaay bi ak xumbal bi dañ koy teg fële parce que ci dëj lañu ne waaye dinañu def caravane bu oyof dem seeti kilifa diine yooyu parce que ku wax pakaaw xam nga ni diine moo tax ñuy wax ku wax pakaaw xam ni ay kilifa diine yu mag a fi ne ñu dem ziar leen sàkku ci ñoom ñu ñaanal ki fi jóge lu am solo la sàkku ci ñoom ñu ñaanal ñu waaye sàkku ci ñoom ñu ñaanal Sénégal yépp yàlla def fi jàmm yokk fi jàmm ji yàlla may ñu li gën pour Sénégal yàlla aar ñu musal ñu aussi ci musiba ak balaa loolu mooy message bi ma bëggoon délivrer fii di gërëm yéen ñëpp yéen waa di wax ni directoire national bi am na dogal bu mu jël xam naa dinañu coordonné bu si kanamee ak ñi nga xam ne ñoo leen fi teewal mooy dina am benn waxtu boo xam ne ci bés bi. bëgg nañu ci réseaux sociaux yi bëgg nañu ci activités yi nga xam ne militants yi koy def mu am benn màndarga boo xam ne ñëpp dañ koy bokk un symbole boo xam ne ñëpp dañ koy bokk pour marquer le deuil et pour marquer notre solidarité ak ñeneen ñi nga xam ne tey ñi ngi ci gaañu gaañu yooyu di ñaan yàlla mu yem foofu ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ñu ngi leen di gërëm leen sant merci beaucoup.